وتسليم على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 hôtel 77 677 77 08. di leen jaajëfalaat bu baax a baax saa ñi nga ni ñuy topp à travers toutes nos différentes plateformes waaye rawatina yéen ñi nga xam ni yéen a topp macha allah borom xam-xam bu mag bii di sunu papa macha allah di sunu sëriñ oustaz Iran Ndao oustaz ñu ngi lay nuyu la nga boobu. ñu ngi leen di fay di leen bi. di ñaan yàlla boole ñu yiw boole ñu teraanga boole ñu jàmm ci daraja yonent bi sallallahu alayhi macha allah Oustaz ñu ngi lay massawaat coono di la jaajëfalaat ci disponibilité bi waaye saa su ne bu réew mi yëngoo mu mel na say kàddu dana nekk kàddu yoo xam ni euh, gars yi dañ koy bëgg ñëpp di ko xaar wax fa dëgg yàlla ndaw ñi di la déglu waaye tamit njiit ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp réew mi di la déglu fan yi Oustaz macha allah ku ne xam na ni Ousmane ko ci li nga xamni ne dossier médical am dafa fuité wané ni kat Ousmane Sonko mi ngi ci tawat gu metté metti waye ñi nga xamni ñoko japp di euh, nguti nyom ñom lank nañ ni ñu bayyi ba taxna amna ñu ragal ni Ousmane Sonko mën na ci seen loxo tay ban appréciation gam ci lool man dal lima ci wax ne président Macky man loxo ne ko jéggel ndax itam li ko yàlla defal ku ko yàlla defal dara waratu laa naqari ci réew mu toll nii nga jiiti leen par force bu leen neexee yaay seen jiit bu leen naqari yaay seen jiit nga jël usmaan Sonko téye ko ci kaso bi wax dëgg yàlla ba feebar ba tollu fee na ko baal nag na ko baal mu génn dem ci ay njabootam sinon am na foo xam ne bu fa yeggee day ëpp te bu ëppee dana doy waar waaw bu desee seen loxo dana doy waar kon nag léegi na ko na ko baal rek yi daal moom bu waxee mu baal ko bu waxee rek ñu baal ko waaw ci loxoom la ne ci léppam la ne na ko jéggal na ko jéggal na ko jéggal ngir que euh, bu ko jéggalu lu baax parce que ki nga xam ne dem nañ ba xam ne léegi sonn na te bu amul bu ñu amul chance mu des seen loxo léegi bu desee seen loxo lu ñuy wax foofu laaj du fa am te bu boobaa mën naa indi problème bu rëy waaw mën naa indi problème bu waaw boo xam ne bul xalaat fu muy yem waaw kon nag na ko teel a jéggal léegi ñu bàyyi ko moo gën man de loolu laa koy ñaan président Macky daal li ma koy ñaan mooy na ko jéggal li ma koy ñaan mooy na jéggal Ousmane sonk li ma koy ñaan mooy ni jéggal Ousmane Sonko ñu bàyyi ko. Macky nee na moom du jàppe yoon mooy jàppe. mooy jàppe dëgg la moom du jàppe yoon mooy jàppe waaye naa ñaan yoon <laughs> sañ naa ñaan yoon sañ na yoon nag yéen ko jàpp may leen ma ngeen baal ko ndax feebaram fi mu tolloo tax yoon bàyyi ko moom sañu la jàppe ti du jàppe yoon mooy jàppe yoon mooy àtte yoon nag bu àttee te àtte ba ëpp nga xam ne léegi kat ki ki ñu àtte lii moo ko dal lii ko dal lii ko dal sañ naa ñaan moom yi ñi àtte ne leen baal leen ko ni ma ko ñaanee ne ko baal noonu la leen di ñaanee ne leen baal leen ko ñu baal ko. <laughs> am ñu ñoo xam ne xëy na ay farandoo Macky la ñu jàpp ni bu fekkee loolu la day yomb ku ñu jàpp nga génne dossier médical ni da nga feebar ñu bàyyi la loolu day bëgg a yomb quand waaw baax ñoom ñoom seen yéene lañ wax waaye nañ bàyyi xel ne jaam lañ. sonk jaam la ñaari jaam yu daje leen ci kanam boroom dinañ bàyyi xel ne des na beneen jàppin budul bii des na beneen jàppin budul bii mooy bu yàlla seen diggante yàlla ñun ñëpp danañ dee kenn du wa inna rabbaka la bil yàlla ne na maa ne ci bunt bi ti miir bi kenn mënu koo tëb ñëppay dee léegi nag buñ demee ba ci kanam yàlla nag foofa foofa rëcc fekk na jëf wees waaw loolu wax rek la nañ ko baal médicalu ku génne kayitu médical baal la wax kiñ ne dafa feebar feebaram jéggi na dayoo nañ ko baal na ko baal Macky daal na ko baal sinon bu ci dara amee coow lu ci kawam la jëm coow li ci kawam la jëm du dem ci siis bi du dem fenn ci kawam la jëm kon na ko baal ngir yalla rek mo gën ni mako ñaané non la leen di ñaané rek jeex na waaw. jeex na bu ko bu ko balé gaay japp ni ñom ñi far ak Macky Sonko warut a bokk ci élection yi waye ñi far ak Sonko japp ni ñom te gëm ko Sonko bu bokkul ci élection yi élection du am ndax ñom gëm nañ ni 5e président du Sénégal Ousmane Sonko lay doon. waaw lolu moom benen affaire la waaw benen affaire la bu bokul ci son bu Sonko bokul ci élection yi élection du am benen affaire la nañ ñaan ba mu génn rek. ñaan ñaan Macky baal ko ma euh, mu génn rek suñ ñaanee ba mu génn ñu doo ko wax loolu parce que euh, Sonko du bu bokkul ci élection élection du am loolu du wax élection du am euh, gannaaw siis bi ci Casamance àtte na ko ba wax ne war naa mën a mën nañ koo delloo ay dossier war naa mën a bokk ci élection yi ci siis bi siisu Sénégal la siis bi siisu président la ah nañ ko nañ nañ seetaan nag mbir mi waaw nañ seetaan mbir mi ndax kon nag nañ ko bàyyi mu bokk lu bokk lu muy jëriñ su bokkee wàññiwul dara su bokkul wàññiwul dara ti mu bokk amul problème na bokk rek ba xam parce que yàlla moo yor lépp yàllaa yor lépp te yàlla lu mu dogal loo lay am damaa yaakaar nit ñi dañoo bëgg génne yàlla ci mbir yi suñ ci bëggee génn yàlla nag dañ ko ci génne waaye yàlla daal buñ ko ci boolee jiital ko xam ni lu am mooma président Macky xam ne yàllaa ko fal bu wér xam na ni mu yàllaa ko fal mm-hmm. ndax ci jamono yooyu eh, am nañu Moustapha ñas mi nekk ci moom eh, moom lañ yaakaaroon mm-hmm. Tanor mi nekk ci moom moom lañ yaakaaroon mm-hmm. Idrissa mi dem ci moom jigéen naat moom lañ yaakaaroon ñoo ñëpp ñoom lañ yaakaaroon ne ñooy doon président far Macky doon président na xam ne yàllaa fa jaar yàllaa fa jaar mu sant yàlla gërëm yàlla ci jaamu yàlla bi waaw na sant yàlla gërëm yàlla ci jaamu yàlla bi waaw jaam bi baal ko du ko wàññi dara moom pare na ci élection ku ku toog yaa xam waaye nag bu fekkee ne dañoo bëgg a doxalee noo noo xam ne day indi coow ci réew mi du baax parce que am na noo xam ne buñ ko defee ne indi coow ci réew mi te coow amul solo coow dëgg réer buñ coow buñ coowee rek dëgg day dal réer kon nag nañ ko waxtaanee waxtaanee ko daal moo koy moo koy defar dañ ko waxtaanee buñ ko waxtaanee dinañ jubo buñ jubooyee jeex na kenn ku ne dem ca la nga dem kenn ku ne wuuti rek yàlla tànn président bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàlla tànn kiy jiite ba dem ci mbo mbiram ku la yomin huwa fi seen ngi ci yeneen affaire mm-hmm. nekkatul ci lii waaw kii doon président pare na ci moom moom pour borom bi Eh, kii ki koy doon pare na ci. kooku jeex kooku ñun ñoo ci des di coow ak nangam nangam diw yi di kii la Macky Sall tànn kii la diw tànn kii la tànn kii mooy doon président waaye yàlla moom pare na ci lépp. la pare. ti eh, ti nag bu rëddee nga far. mu rëddaan nga far dalay rey ba pare rëdd sa kaw ku koy far. du ko far. Euh, ma xaw a dugal benn question rek euh, dinaa maa ngi dégg nga naan euh, na ko jéggal te ñaare ku ñuy jéggal mooy ku ñu te moom Sonko ak ak ñu mu àndal jàpp nañu moom tooñ ba léegi nag moom mi ngi ci mi ngi ci yoonam loolu tamit. Euh, waaw nañ ko jéggal kaso bi nañ ko jéggal kaso bi parce que fa mu ne dañ ko fa téye. buñ ko baalul du fa génn. nañ ko baal loola. Mm. nañ ko baal fa mu fa mu dugg. Mm. nañ ko fa baal mu génn waxuma ne moo tooñ waxuma ne dañ koo tooñ dama ne nañ ko baal fa mu dugg mu génn su génnee jeex na nañ ko baal rek mu génn parce que gis nga yenn yi la waa ji waxoon ba ñuy def élection yi dafa euh, oto seen Peugeot bi moo këpp bi mu këppoo am ñu war ci kawam am ku ñëw ne jël leen ci kaw bàyyi ci suuf mu ne ko xanaa dañ laa warul <laughs> Oh. waaw xanaa laa warul buñ la waroon doo wax loolu mais loolu la uh-huh. ñiy wax ñëpp dañ leen tëju rek buñ leen tëjoon duñ wax loolu ñuy wax ñëpp dañ leen tëju rek uh-huh. waaye buñ leen tëjoon ci kaso bi duñ wax loolu uh-huh. waaw nañ nañ nañ baale senegal ni ñu jikko ju baax jikko baale baax na parce que baale dafa am solo waaw waaye bañ a baale amul solo nañ baale rek. waaw nañ baale rek waaw. macha allah nan nan baale oustaz léegi Sonko ñëpp dañuy ragal ni bu bokkee ci élection yi 10 heures yëf yi mën na féetee côté te moom Sonko xamle na ni kat bu toogee ci bopp réew mi dana toppante képp ku mu njort ni jël nga alal réew mi est que du ñoom loolu la ragal. ah xanaa dañ koo jël xanaa dañ koo jël ku jël alal réew mi ragal loolu waaye ku jël kay doo ragal loolu. ku jël aru réew mi doo ragal waaye nag wóob nga tëb ti néew sàcco ah kooku nag yaa xam waaw waaye daal ku jël aru réew mi yow yaa xam ku jël aru réew mi yaa xam waaye daal li li am solo 9 heures ak 10 heures ak 11 heure bu ko makk mu ko bu ko Sonko jëlee baax na waaye dama laa wax ne mbir mi ci loxo yàlla yàlla moo xam kiy jël président bi ak ki ko dul jël yàlla moo xam kim mu teg ku mu fi dul teg tuutil mulka man tasha yàlla jox nguur ku ko neex ti ku mu xas désigné ni kii laay jox jeex na coow lu mu bëri bëri koo ko fay nekk mënoo ci dara parce que yàlla kenn du wañaar loxoom yàlla kenn du damm loxoom yàlla mooy def lu ko neex kon nag nañ nañ ko bàyyi rek amul solo wallaahi amul solo président Macky na sant yàlla bu baax bay dukkat na sant yàlla bu baax bay dukkat na sant yàlla bu baax bay dukkat ndax li ko yàlla defal ku mu ko defal war ngaa sant yàlla ci moom rek la karaama yàlla génnee mm-hmm. karaama yàlla dëgg kéemaanu yàlla mm-hmm. ci Macky la génnee ndax ñi ñu foogoon ni ñuy jiite ñëpp mm-hmm. kenn jiitewu ci kenn jiitewu ci te ñëpp ñu mujj nañ nekk njabootam far <laughs> allo ci man lu tax la moo tax ñu Sénégalais yi xaw a jàng ci ni muy doxee maam ni muy doxalee fan yi mooy bëggaat seulement lii de APR nekkaat ci nguur gi fii ba 2035 parce que boo xoolee Amadou Ba moom la ñuy préparé pour mu nekk candidat te ñoom jàpp na ni ñoom ñoo war a nekkaat ci réew mi. waaw loolu loolu moom ku ne war nga koo jàpp. ñoom war nañ koo jàpp. opposition war nañ ko jàpp waaye yàlla moom lim jàpp xam nga est-ce que xam nga lim lim jàpp. <laughs> yàlla xam nga lim jàpp. yàlla xamoo lu mu jàpp xamoo lu mu jàpp Macky Sall la fi nekk wala parti ma fi ne wala keneen ma fi ne ana ana ana ana PS PS jàppoon. kenn ah, ah. ana ñu jógee nañ fi ba dugg ci Macky mm-hmm. ah ana PDS mm-hmm. ah, waaye yow bàyyi leen loolu yàllaa fi ne mm-hmm. bàyyi leen ak yàlla lépp mu jeex parce que li ngay bëgg. yàlla na la ko yàlla bëggale mu baax bu la ko yàlla bëggalewul du sotti parce que ku ci ne am na exemple PDS am na exemple PS am na exemple Macky Sall mën naa am exemple loolu rek la waaw sañ naa tànn nag moo xam bu tànnee Amadou Ba moo xam buñ ko falee baax na buñ ko falul baax na waaye daal kiy jiite yàlla rek xamul yàlla tànn na ko ba pare nee na diw yi jiite jeex na na ñëpp topp ci kawam pare na ci moom mu nga ca le yàlla ci leneen néew ci yi ñu ne nekku ci parce que xamul mooy nekk ci lii waaye ko xam doo nekk ci lii yàlla moom xam na lépp mm-hmm. waaw moo tax euh, am amul problème maa mm-hmm. koy